ma sañoon wax deug yalla wax ji ngeen di wax neex na trop ndax da ngeen di da ngeen may bak waye man lima fi indi moy xol ni ngeen toge ndax dafa mas nek lo xamne ni dañ ko yag waxtane ndax ñun mosuñoo utiliser mo dégervissement mo recasement parce que ki nga xamne fim nek dafa dafa dafa dafa nekk fuy fuy fuy fuy baaree fenn soo ko yóbboo fa mu war a nekk foofu leer te mosuleen a bañ dangeen a yàgg a wax ne mbedd mi du jaayukaay waaye amuñ pexe kon buñ amee pexe tey ba ñëw teg leen fi man dama leen di encourager di leen assurer ne fii danañ ko defar ci lu gaaw ci lu gaaw a gaaw danañ ko dale danañ ko wutali toilette danañ ko délimiter defar ko ba nga xam ne nii bu ngeen wàccoon tëju leen seeni bagage tamit bu ngeen ñëwee dangeen ko fi fekk xaaral xaaral comme ni nga xam ne nii moom la foire bi mel ngeen xam ne da ngeen a ji dangeen a ji képp ku leen di wax fii baaxul yéen la bañ fii lii su fii ci kanam balaa mat at nit dana ñëw bëgg la fay million ne jox ma ko tëdd ci kon nag balaa yàgg danaa yebal ñu ñëw ñu recensé leen ñu commencé liggéey bi ndax li ma ci bëgg wone mooy ñii kat ñoo yàgg wax ne fii ñu nekk du place xam nañ ne fii baaxul waaye amuñu pexe nit lislaam may na sax boo amul pexe ba xiif ba amuloo loo lekk nga dagg sa yaram lekk kon nag léeg-léeg ambulant wala table tablier dañ koy sonal waaye dafa amul pexe ku sañoon da ngay am boutique bu baax ba wàccee nga dem kon loolu du problème incha allah daal loolu daal maa ngi leen koy rassuré danaa fi ñëw te danañ ko defar balaa yàgg balaa yàgg incha allah balaa foiru foiru di amaat da ngeen di bokk ci foire bi da ngeen di mel ne seen foire bi. yeneen ni maire yi ñuy toltolaan ci mbedd mi ba ci seen i maire di dem ñuy xuloog moom wala ñu ko di saaga ñun nag dañ ñoo jëlee ci mbedd andi ñu ci sit tàccu leen loolu. loolu kon dafa am dafa am cant dafa am ngërëm boo xam ne ñun ñoo ko jël di ko jox monsieur le maire. di ko wax ne taxawaayam ci jeunesse su Kaolack ci jigéenu kawlak lii firndeel na ko kon dafa am loo xam ne bu amee mbokki yi delloo njukkal ci war a am sëriñ sa acte bii nga def mën na la jural lu bëree bëree bëree bëri ndax njaboot dafa war a yëg ne way juram njaboote na ko te ñun yëg nañ ko kon sa taxawaay fii ci marché bi euh, ñu ngi ñaan gis nga li fi nekk ñi fi ñëw tamit yaa fuusuñu ku ci nekk yaa ngi wut sa jël sa juróom ak sa ñaar dërëm yoo xam ne yaa ngi koy am ñu jox la bërëb nga jëm fa def dara kon defe naa taxawaay boobu noonu ah, ñu def ñun ci néew doole sëriñ ñu ngi ñaan tamit sa soutien ginnaaw bu ñu joxe si ba pare ñu ngi ñaan beneen soutien bu ëpp li ñu jox donte xeebuñu li ñu jox ndax bëgg bëgg nañu ndox mi gën ñu jege bëgg nañu douche yi gën ñu jege waaye bëgg nañ sécurité bi tamit gën fi jege ba nga xam ni dañ gën a ñeme ndax ndax jigéen ñu ci boppam ñu ci bëri yàqoon nañ seen xel ñu ci bëri yàqoon nañ seen gis-gis wan leen ne fii dafa la ndëm wan leen ne fii ay jaana ngi fi te mattagut fi kenn kenn gisagut ko fi kon fi ñu jox gëm nañ na baax na kon li ñu li ci des rek mooy ñun ñu fi indi ñu am ngëm-ngëm. xam ne bu ñu la joxee dara ki la ko jox du mooy ñëw téye sa loxo ne la li ñu war mooy ñun ñëpp dañuy sacrifié wu ñëw ci marché bi toog te du sacrifice ndax bu ñu ñëwee clients yi dinañ ñëw kon nañu ñëw di gërëm nag bu baax a baax a baax monsieur le Diack du ma ko du ma ko du ma ko kii ndax nit bu defee lu baax sëriñ dama la koy seedeel ak ak ak équipe bii mu bu jigéen mairie tamit ñëw fi vraiment ñu ngi fi def liggéey bu am solo mais Diack mi mom mention spéciale mi ngi def liguey bu am important kon danañ ko wax Diack tagguma la li nga def la wax soko ko defaloon du ko wax man du ma defal nit lu mu waxul ñi bi ñu fa ñëwee dañoo ànd ak ñun ci ay sentiments yo xamne xam nañ ne yéene nañ ñu. kon loolu yëpp maanaam ñu ko tibbee ci suñu maire c'est parce que moo leen yebal pour ñu def liggéey boobu noonu kon sëriñ ñu ngi sant bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax waaye ñu ngi lay tàllal suñu loxo encore une fois lépp loo xam ne nii ndimbal la boo xam ne mën na ñëw fii nii ci lu gën a mën a yéwénal fii nii moom ay jeexital ci ñun rek ñu ngi lay tàllal suñu loxo ñun waa macha allah ndax doomu aadama bu rero am mu yekati kaddu nga demat bam yag degat déggaat ko mu yekati kaddu yo xamne ne ko ko moko sakku bopam da ngay xamne ne rek rero gogu ya. nak man marché bi suma fi xex dara wala ma defe def njariñ la man awuma fi ben njariñ xam nga ban njariñ la fi am liñ ma dénk yékkati dénk ma Kaolack marché bi ñu dénk ko mairie bi loolu rek laa fi am sax boobu rek laa fi am dëgg la nag képp kon dégg bul bañ am baatu gannaaw ndax yéen ñi jiite sax da ngeen am baatu gannaaw waaye loolu yaakaar naa nit ñu am grandeur mën nañ koy dégg kon nag daanaka wax ji duma ci bareel lii laa mës bëgg ndax damaa def lu symbolique lendemain bañ nee gañe nañ maire yi fi ma njëkk a teg sama tànk mooy fii ci wàllu marché parce que dama ne su ma yoree kawlax ba jóge fi te marché bi teguwul ci yoon fay naa sama mission yàgg naa leen wax nag ne. marché kenn mënu koo toj ku am yéene def tamit mënoo ko mi ngi mel na nga fekk sa kër say doom nekk faak say lépp di fa dunde nga ne naa ko toj mënut a nekk la nga man mooy jàppale leen ñu organiser wu te loolu ñoom ñoo ko yàgg wax mais nag yéen ñëpp gis ngeen li ma doon daw mooy ay ambulant dëgg la fi nekk waruñ fi nekk kooku ñëpp ko d'accord mais dañuy taxaw taxawaay boo xam ne nii bis boo xëyee te organiser ko ne leen bis boobu marché bi yaakaar naa coow dana bari ci Sénégal yëpp ndax premier ministre moo ñu ëpp doole fopp waaye bañ dëgër përi Colobane dégg nga coow la fa am dafa mujj ne dem fa kon nag loolu laa doon bañ waaye alhamdulillah bi yàlla defee ngeen waxtaane ko seen biir commencé ko fii ci secretaire général ak Ablaye Thiam ak Babacar Diack ak adjoint yi ak madame Tall ak ñun ñëpp ngeen waxtaane ko ba bi ngeen koy def sax di ko defar fekkuma fi kon loolu daf may fekk si ci li ma doon wax ne la ma gënoon la Pape Idrissa géej doon wax buñ ne ko ana sa bilan mu ne sëriñ boobay sama bilan suma sañoon bis ma fi jóge tamit wàcc fi nit boo xam ne mooy sama bilan ndax dana continuer la ma doon def te gis naa ne lii am loolu la dégg naa seen wax yéen ñëpp li am solo rek mooy ngeen gën dajaloo dajaloowaat ci loolu xam ne a ah ambulant boutique yeeg borom magasin yëpp ñoo bokk marché bi waaye kenn ku ne nag dangaa war a yem fa nga war a yem rek ñu taxaw lu mairie musta def budget mairie bo demee tay 250 millions mañu fi marché di moko moko taxé ko 250 millions mën ta tabax marché waye lepp lo xamné ni buñ ko défaré marché bi gëna ñong ci éclairage ci yo xamné ni dana yok sécurité ak li fi am nga xamné ni nii dindi nañ ñi fi nek fa ñom la jëkke jëkke néna len inshallah dana len ko défar ba nga xam du ngeen réccu du ngeen réccu fa ngeen jógee ndax buñ ko réccu rek fi lañuy la ci dellusiwaat kenn mënu ci dara waaw te loolu ñu ñëpp ko war a daw jox naa instruction chambre de commerce ndax moo gën a ah woyof maire maire yi très rapidement balaa mat une semaine mu commencé fële ba nga xam ne ña fa nekk dañu ne ngir ñu jóge fi kon bu boobaa ñeneen ñi ngeen di wax ne nañ fi jógee deuxième phase bi def bi day yomb trop maa ngi leen di gërëm leen sant man seen mag laa seen nijaay laa seen rakk laa Oh, dara lu may japp sama xol ndax nit ki bu la yàlla so soo da nga yaakaar ne doomu adama man na laa wax lu lay metti nga santul yalla ndax da ngay ne lepp rek ñàkk xam la wala ñàkk def ndax ñi la koy wax tamit ña ngay dégg ci ñi leen ndaw ñu leen di wax leen naxari kon Lamine yaak ñi nga andal ak délégué yi nga xamné ni ñoy délégué yi fi maire bi bayyi and leen ngeen liggéey ndaw nak deug la moo ëpp ah dynamique mag dëgg la délégué yi fi nekkoon maire wàcc leen fi ñu ci bari ay mag lañ kon su ngeen waxtaanee bu juboo rek dana yomb xam nga maire ñëwal def lii rek moo jafe waaye gis nga bu ngeen toogee yéen seen biir ngeen waxtaanaat ba juboo ba d'accord ak EG mi ngi nii taxaw ngeen def na ngeen organiser bu ngeen soxlaa maire bi maire tax du ngeen soxla maire yi dama la jox exemple rek lu simple coow lii fi am daa ngeen ko dégg marché poisson xam naa bu ma waxee chaque fois marché poisson ne bu ñu cat marché poisson seenu kees ba ngeen déggee coow li deux cent cinquante mille francs moo fa nekk muy le muy le neuf vingt déggoon ngeen coow li bañ ne ay jaas génn la bañ leen organiser ba jox leen gestion bi seen bopp ñu xam ne kii fii lay tegu fii lay tegu kii lii lay fay xam nga lan la moo nekk seen kees cinquante neuf millions tey mais marché bi lu ëpp loolu mën na ko am bis bu ngeen waxtaanee ba juboo ba d'accord ni koy gérer mën naa laa waatal ne su dee ci sama décision la percepteur daf ci génn loxoom sécurité bi teg ko seen loxo ngeen organiser seen bopp kuy nekk fii moo fay nekk kuy fay jox leen ngeen ñëw fay jàmm nañ ñooy loolu laa leen waxoon bi may campagne te loolu laay waxaat ba tey maa di gërëm sant Lamine jërëjëf ci ci ci teraanga bi yal na la yàlla fay ak ñi nga àndal ñëpp jërë ngeen jëf. waaw ñu leen gërëm mooy quel que soit ñoom am nañ benn esprit de compréhension bu ñu am ñoom ñu ma xoolee su may wax ñoom ñoom ñu xool Lamine damay wax mais dañuy jàpp ne marché la ñuy jëflante man niveau boobu laa leen nawee moo tax bu marché bi amee benn problème. bu njëkk dama doon oo madame Tall mais dama koo taf léegi owatuma ko léegi su ma su ma ooyee <laughs> léegi su ma su ma ooyee jaag très sérieusement da taxaw te mënoon na ne non nangam ak nangam mbaa mu andi am beneen kii bi wax mais mais da taxaw moom Jacob très sérieusement moo tax seen saa su problème yu bëri ñoom dañ ko réglé te ñun jotewuñ ci maire kon ñu ngi lay seedal ñaar ñii ñu ngi ci li ñu a nekk muy jaag ak zotop seen guddeeg seen bëccëg yëpp ñu ngi may nopp te lépp lu ngeen tawatal loo xamante ni parce que ñun mën a tawatal suñu problème bopp man ne su ma demoon di yelwaan si mbedd mi sax du ma leen tawatal sama problème bopp heure bu ma leen ooyee rek maa wax leen rek ñu xam nañ ne problème marché laa leen wax te dañ ciy taxaw ah ni comme ni mu waree kon yàlla na nag boo taxawee fii nekk seen kilifa nekkaa la ñun suñu kilifa nekk ñu ngi lay liggéeyal ñu ngi lay utu ci kàddu foo xamante ni nekk ko foofu wax dëgg fa yàlla joxuñu ma ceeb joxuñu ma diwlin te mënuñu maa joxuñu ma fenn loo waaye nag dañoo jëf rek ku def ku def lu baax ñu wax la maanaam daal nga defal ñu wax waaye def ko yu am solo yi ngi ci def kon nag ñi ngi wax ne lépp loo ñu mën a gën a doolelee rek soxla nañ ko ci yow soxla nañ tamit ay ay euh, kii nu mu tudd ay financement yoo xamante ni nga jàppalee ñu ko bu baax a baax beneen bi ci topp am na ñoo xam ne ñoom nga booleeg ñun ku ci mel damay tudd seen tur ku ci mel ni LG muy le secrétaire général May Ngom ku ci mel ni Babacar Diack ku ci mel ni Jacob ak ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ci municipal bi di liggéey képp koo xamante ne boole nga ko ñun rek na sa xel dal ci moom ndax liggéey bi ñu leen jox ñu koy dox suñu diggante ak ñoom amul lenn luñ ci yàq dañ ñu defaral rek mais yàqaluñu dara am na ñaari nit am na ñaari nit yoo xamante ni xëy na su ma tuddee turu kenn ki sax dañ nañ ne su ñun la bokk ku ci mel ne may ñaa ak Sidi Jaxate mii donte ne di bokk ci ñun ci biir mbaar mi la ne mm. waaye wallaahi saa bu suñ bët xonkee bokk na si ñuy njëkk ñëw taxaw nañu ah te ngeen def lii ak lii xam naa yaakaar bu nga ko defee dina am maanaam bëgg naa nga gën leen jàppale bu baax a baax mm. ndax wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ sa diggante ak ñoom ku ñu su rajo dama leen dégg sax ñuy xuloo ndax yow damay dégg ñu leen wax ay wax yu ñaaw ndax yow kon nag loolu jar nañu leeral ko tey donte ne si ñun lañ bokk waaye nag dinañ ko leeral waaye daal maa ngi lay xamal ni wax dëgg yàlla marché bi ñu ngi ko dénk mata nañ ko sëkk Babacar Diack LG Mbaye ngoom Jacob ak képp koo xamante ne agent municipal nga nekk ci marché bi wax dëgg yàlla rafetlu nañ seen taxawaay kon jërëjëf monsieur le maire ñu ngi lay sant baax di la gërëm am na ci lenn loo xam ne nag bëggoon naa koo leeral tuuti rek nga baal ma am na si ñun suñu ñoñ ñoo xamante ne fi may waxee yow xëyatun hmm. suñu place la ñuy toog suñu wàccee jël suñu xaalis bokk ak ñoom ñu dem ñibbi ñu ngi fii ci marché central Kaolack muy marché bu yàgg boo xam ne nii ay année mille huit la kon buñu fi yag dundu lo ëpp fanweeri at marché bi nenañ nañ ma nii mu mel tey fanweeri at mus ko mel wallahi wallahi ci sétal marché bi ci def fi ay toilettes ci organiser len ndax ku yaro ci marché boo xamul nooy organiser ambulant tablier magasinier kon xamoo ni ñu organiser mhm. ambulant ñàkk pexe la pexe mi ci topp mooy tablier mhm. pexe mi nga xam ne nii mooy pexe mu xaw a dëgër mooy nga am sa boutique ëllëg am sa magasin waaye ambilan moom ñàkk pexe la man sama programme fii ci Kaolack mooy ambulant dootu fi tuddati li ñu tuddee te ambulant mooy taxaw ci mbedd mi léegi nag fee defaral nañ leen fa dem naa fa li ma mën a assuré balaa weer wi déwén ña fa nekk duñ rëccu liñ fa demee woon ndax danañ am lañ war a am lépp loolu moom leer na ma yéen ñii nekk fii tamit danaa xalaat nuñ gën a mën a defaree parasol yi ba mu gën a neex a xool waaye nag ngeen góor góorgóorlu ngeen góorgóorlu ba li leen di joowaleeg borom kanti magasin yi mm-hmm. ngeen moytu ko mooy nit ki tamit wax dëgg yàlla mm-hmm. bu amee magasin teg ko mm-hmm. nga ñëw yow teg ci kanamam lal ba ba làq ko neexul droit kenn ku ne da ngay yem fenn kenn ku ne yem fa ci des man daal maa ngi leen di gërëm kon daanaka man jaratul may intervenir ci marché bi ndax ku mel ne Babacar Diack. Mhm. jàmbaar la jàmbaar la walaay Jacob jàmbaar la Mbaye Ngom. yëndal du ak ak mhm. ah, Thiam. Mhm. encadré leen. wallaahi li ngeen bëgg ci ci defar. madame Tall jàppale leen ci financement. ndànk ndànk nag mooy dàq golo ci ñaay. wallaahi yàqamtuwuñ dara. waaw li may wax gars yi. Uh-huh. yàkkamti. moo yàq lépp. yàlla am na kun fa yàkkoonum. Uh-huh. waaye ba muy bind asamaan suuf. Uh-huh. juróom ñaari fan la ko bind. te moom moo ne. inna yawman inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'udduna kon yàlla bésam bu ne mille bis la. kon nag autorité. bu ngeen jox dara mhm. ba ci ñii yor réew mi mu mhm. muñal leen leen tuuti tuuti mhm. su ngeen leen mu muñalul coow li bari lépp day yàqu ñu tàmbalewaat kon nag yéen juba muñal leen te leen incha allah ngeen fexe fi ngeen toll bu leen ko dépassé bu leen ko defee rek ñoom am jàmm ñu am jàmm ñi amul place tamit danañ am place ndax fee buñ ko defee nañ dem inscrire ci chambre de commerce nañ dem nga inscrire jàng nga yóbbule leen buñ defaree fee ba ña fa neex du ñàkk lu des ñoom tamit ñu wutal leen xool liggéey bi nga xam ne nii daanaka ëpp na six mois ñu di ko liggéey ci marché yi euh, xëy na Dakar dafa bari coow rek waaye ñun teel nañoo gis détecte problème bi nga xam ne nii moo nekk ci marché yi ba yéen gis ngeen ne lu jiitu tabaski bi dañ ko réglé réglé problème bi ndax wax dëgg yàlla euh, marché buy buy buy buñ naan marché mooy nit ñi mën a circuler euh, nit ñi mën a oto yi mën a dem loolooy tax ñu naan marché waaye marché bu dee ba nga xam ne ni mbedd mi ñuy taxaw dañ fay taxaw di jaay kii jaay sax du jarle bon léegi nag fii moom ñàkk pexe rek la woon waaye ak ñàkk a déggoo mais waxtaan nañ ba juboo ba ambulant yi wutal nañ leen fu ñu dem nangu nañ faa dem incha allah li des nag mooy maire bi investir fa ba nga xam ne nii du du rëcc lu tax ñu jóge fa defal leen ko dalal leen ko defal leen ko ay toilettes ak yëpp te loolu incha allah délai bi ma joxe mooy délai maximum 3 mois danañ ko defar waaw fii tamit ma ñëw fi fekk sama xarit Assane mu nekk sama rek mu am indi ma fii ci kaw am xalaat yu ma fi xalaatal ma nekkoon nañ xool techniquement ñu xool ko en tout cas tey daal visite bu am solo ndax délégué marché yëpp muy délégué euh, délégué principal yi maire teg ak délégué sectoriel yi ak association yi ak waa centre commercial bi yëpp accueillir nañ ma et li des rek mooy ñoom ñu ànd waaye ay nit bu ñu ànd dañ leen di ànde ñun lañ teg ci dëkk bi bu ñu nee dëkk bi ne la maire ne la premier magistrat ça veut que moom mooy yow da yaay jar leg leg bu jafé jafé amé nga réglé jafé jafé yoy nak euh Diagne jak Jacob mbay Ngom ak cham euh, ak madame tal yépp ñu ngi leen di encadrer ñun yaakaar dañu gëna évoluer ba nga xamné ni l'exemple de régler les problèmes de marché tablier et ambulant suñu jël premier exemple ci Sénégal dañu ko jël ci Kaolack xam nga Kaolack dañu nekk ci travaux yu bari inshallah allah Kaolack ñun très bientôt suñu place condam bi moy place bi dàq ci Sénégal ma leen ko wax ah xanaa corniche ndax gis naa ñu def fa dix huit milliards waaye ñun amuñ milliards ñun euh, Promoville am na lu mu defal mais am nañ beneen budget bu mat cinquante huit millions danañ ko defar encadré ñooñu ba ba mu gën a rafet terrain football yi danañ ko àggale et en même temps gis ngoon depuis daaw problème yi amoon ci marché poisson imaginez marché boo xam ne nii biñ ko jëlee dañoo fekk ñuy xeexoo a xuloo seen recette li ñu amoon ci xaalis ci seen caisse deux cent soixante-trois mille francs la mënu woon a fay sax employé six mois d'arrière de salaire mais bi ñu leen organisé bañ ànd tey ñi ngi am un but un euh, fonds disponible de cinquante-neuf millions kon tey marché bi mën na lu ëpp loolu junni woon junni woon yeneen marché yi mën na ko je parce que ñàkk a euh, ñàkk a waxtaan rek la te incha allah ñun danañ ko def ñu bañ a yàkkamte rek ndax euh, mairie amul yenn moyens yi Euh, mooy yu ndaw la am mais bu fekkee nit ñi dégloo nañ ne état bi jàpp lañu incha allah Kaolack danañ ko def ñun ni ñu waxante woon ñun ba ñuy campagne dañ ne dañu bëgg faire de Kaolack en deux mille trente une ville émergente dotée d'une bonne qualité de vie on n'est pas en deux mille trente on est à deux mille vingt quatre il nous reste six ans donc je pense que nit ñi bañ a yàkkamte ndànk-ndànk dana ñëw. kondam kondam rek moo am cinquante huit ci sidde recasement bi budget 30 millions lañ fay def inshallah bokku ñaar yoy ben bokku ci voilà xam nga ko yoro ngi ni xam nga so kiré ba noppi même bu dal tojee waroo caa soti je pense que li bon bonne éducation rek mo ci dess ndax nit ku ne so démé sa kër sax sa euh, sa kër am na toilette waaye su amé fenn do fa soti kon je pense que lolu li ci dess nak mom moy ñom ñu waxtaan lolu tax toujours mané len délégué yi man di tok di waxtaan def sen police bop seen police bopp mooy ku fi bëgg def lu normalul nga dindi ko comme niñ ma waxee ne Assane moom la wax fii dañ fi daan def lu ne mu ñëw taxaw dindil ko boppam ndax lu baaxul ñëpp ko mën a dindi waaye yaakaar naa ni ma leen gisee ak waxtaan yi ndànk-ndànk a dañ daal ndax xam nga ne marché central nawet kenn daaw fa dugg marché central maire ñëpp ñem wu fa woon a dugg autorité bu dugg ñu waxu la ku fi ñëw ñu andil la problème ñun dañ koo ñeme incha allah chaque fois ñu def ba tey gis nañ ne ah ñëw nañ fi ñu yooxuñu comme ñëpp waaye ak maire la gis nañ ni ñoom ñëpp ñi ngi gis suñu liggéey ba ndànk-ndànk ba ñoom ñëpp tey tatagal nañ ñu bu baax a baax. marché géej moo kii waaw mooy étape la mooy buñ paree fii mm-hmm. après marché géej ni ñu defaree marché poisson la marché géej di def loolu étape la. Mm-hmm. xam nga day dem nit yàgg fi dara loolu yàgg na fi ëpp na fanweeri at mi ngi fi ndànk-ndànk rek ñoom d'accord nañ ñoom xam nga lu taxoon ñu ne duñ def loolu ndax ñun ñoo fi bàyyi ambulants yi ñu fat léegi nañ fi ambulants yi table yi jëlee wuñ leen fi dañ leen fi yóbbu leen fenn table yi defar nañ leen boo xamante nag fekk at fekk ñaari at mën naa am fekk juróomi at wala beneen keneen a koy réglé ndax ndànk-ndànk la loo xam ne nii installé wu na fi lu yàgg ba léegi moo tax ñu ne leen dañ leen bëgg a jàppale ba ñoom ñu def ordre bi nit bu ñu demee ba xam ne ñooy seen bopp ordre danañ réglé problème yëpp ndax loolu ñuy def ñoom la gën a yàqal ci ñi ci ñii sax